Mustafa santal dayab cant yaa fi amul ku lay werante ka ngaayoo ci Mustafa Seex ci njiitu sëñ Baara Mbàkke Mohamed sëñ Baare waxoon naa nekkul sa rak sëñ Baara sa taalibe la saa su ne ni muy doxee ci liggéey bi kenn ci ñun mënu koo dab ànd na ci ak yërmande waaye ànd na ci ak lu ñuy wax détermination maanaam objectif mu fixe pour sàkku sa ngërëm du ci jëm gauche du ci jëm droite moom rek la mal ku ci ànd ak moom moo kii ku ci àndul ak moom mu fexe ba nga ñëw ba tege ci yoon bi sonn na ci tàyyi na ci mu ngi ciy def nag waaye du découragé waaye nag résultat bi ko ko gis xam ni sëñ Baara Mbacke Mohamed gàcce ngalaam kon nañ wax sëñ Baara Mbacke Mohamed yàlla na fi yàgg tànd ak wér waaw kon nañ ko ñaanal leneen bi mooy jullit li may wax toujours rek jullit moom armam mooy ñaan ñun nag amuñu ko dul sëñ ba sëñ sëñ Moussa Mbacké Mouhamed mii moom rek lañu am suñu xool keneen ñëw ci ku dul sëñ Moussa Mbacké Mouhamed li tax it sëñ Touba la ñuy wut te kenn ku nekk xam na ni ki nga xam ne ki moo fi nekkal sëñ tubaa daaw ca màggal ga lan la waxoon ci jëmmam ji fii la sëñ xaadim ka sëñ gaa xaadim ngay taxaw ci guddi màggal gi ni ko sëñ Moustapha sëñ taxaa nee na yaay sagu yaay sagu yoon bi ñépp ko dégg mun ko yaay sagu yoon bi yaay sagu lislaam ñaari baat yooyu wax na ko fii te su suñ waxutoon du ko wax te kooku lu mu seede loolu suñ tawaam moo ko seede itoxaatu ahibaalu xadim Touba Fatick ñoo lay nuyu di la ziar ji tur Baay Abdoulahi Gueye ak mboolem góor yàlla yi topp ci ginnaawam yépp ci jigéen ñi soxna Nday Fay ak mboolem soxna yi mu àndal yépp ñoo ñëwaat fii di jaay yeesal seen jaayante ak seen njëbal ci seen diggante ak seen Touba ci yow mii dina ñaanal suñu borom may la fan wu gudd lool ba lépp loo xam ne yéen koo liggéeyal sa waajur wa ak sa maam yu tedd ya suñu borom defal lu kawe sa njortu ba ak taalibe yépp ñu ànd ko yow barke Seydina Muhammad ñu ngi ziar bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yaay Moustapha mu ñu tànne kokki di ko belleexaat di ko belleexaat ba ca ball ay sa cekkal seen nijaay si Cheikh Moustapha yaa ni yërëm yaa ni gërëm di ñu may dërëm yaa ñuy defal yaa ñuy defal yaay jenn waay yaay mbambulaan defar na laa sangu leen tëdd yi yaay ndox mu teey ku la tàbbi tooy ku la manditaay mbàkke yàlla nga fi yàgg loolu te wér ñu ngi lay ñaan nag suñu borom ñu ngi ñaan suñu borom mu wan kéem taanu dund ci sa jëmm ji kéem taanu dund ñun ñun ahibaaru xadim ñun jullit yépp sax laay wax ci sa dund gii lañ ko bëgg a xamee yàlla nga suñu borom defal. ci turu section ngeen di ñëw góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu mboolem mbokki taalibe yi fi góor ak jigéen mag ak ndaw sant bu baax ci ndaje mii. nga xam ne ku ko suñ borom fekkeloo am na lu mu nar ci yow ci ay ndimbal la sëñ Moodu Mustafaa waxoon ci guddi gii ku ko fekkee fekkee fekkeeti ko fekkeeti ko war naa tontu bu baax te tontu yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa te tontu Cheikh Mouhamadou Moustapha ñun nag maa ngi bu baax Cheikh Moustapha Mbacké di dollee yeetal suñ mbir ci yow di dollee dëgëral suñuy mbir ci yow di ñaan nga nangul ko gën koo dëgëral gën koo rafetal ñu nu ko yeesale te dëggalele ko ko ñoo ngi sant bu baax tey ñaan suñ borom guddal soo fan lu yàgg yàgg yàgg yàgg ci suñ te nga ànd ak wér ak jàmm ak xéewal ak sutura ak li nga bëgg ci lislaam ak li nga bëgg ci yoonu Serigne Touba yow na ko saa borom jàppandal te nga ànd kook yow. ndax li ci ëpp lépp sant yàlla la tey gën sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci ñetti kàddu lañ koy séddale. Cheikh Moustapha ñi ngi lay nuyu ñoo mboolem kilifa yi ca Saalum sa représentant Cheikh Moustapha Diop ak mboolem kilifa yi fa bàyyi xam naa mënuñu leen a lim ndax temps bi mayewu waaye ñi ngi lay nuyu bu baax di ñaan nga yàgg fi suñ kanam yàlla la yàlla yàggal fi sa kanam suñ kanam yàgg sa mboolem sa njaboot bi ak sa rak ak sa taalibe suñ xol sedd na guy guy guy kàddu yi nag tey dañ koy séddale ci ñett xam naa ni gis naa ci ndigal lii nga nu digal daanan ànd waaye daganoo boole tey ndax tey bu ma soxlaa dakaar mën naa bañ a dem Dakar mën naa woo El Hadj Ndiogou wala mu woo Cheikh Diagne ñu dox la ma fay war a dox suñu soxlaa Kaolack noonu suñu soxlaa Ngéegi neew noonu dañu doon ànd di jonjoo waaye àndunu booloo wun woon boo yaa ngi nuy doog a boole nag man gis naa ni yaa ngi nuy doog a boole fi mu ne benn jëmm lan barke sëñ Moudou Moussa noo ngi doog a booloo ndax bi nu demee ba kenn ku ci ne mën a représenté seen morom ci te doo dem Dakar doo dem Mbour doo dem feneen foo soxla sa soxla faju fa noo ngi doog a booloo dañ doon ànd rek di jonjoo waaye noo ngi doog booloo man gis naa ko ci sa sa ndigal lii yàlla na yàgg nag te sax barke sëñ Mourou Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi fi teew yépp noo ngi leen di jottali nuyóob cheikh mohamadul moustapha mi ni ñaan sunu boroom tey sàkku ñépp nu fasoo ko mooy ñaan sunu boroom ci barkeb sëñ Tuuba cheikh moustapha Mouhamed Mbacké yal na fi yàgg te wér lool sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di leen gërëm ci pas-pas yi ak ci pëstéef yi nee na nuyoo boobu mi ngi koy jaarale ci jëwriñam jii ngeen àndal ba agsi fii muy Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacke Serigne Baara Mbacke nee na bu jaarale nu yóbbi rek ak cant yi ci moom na kenn ku nekk jàpp ni agsi na fi yow waaye kenn ku nekk ci yéen muy góor jigéen mag ak ndaw kenn ku ci ne bu doonoon bu doonoon lu manu ku ne dana mu xaabalaak yow janoog yow ne la jër jërëjëf jasaakallaahu xayra waaye jaareel na ko Serigne Baara te jàpp na ne yéen ñëpp da ci jot nena na kaddu yi nga xam ne moom la ñuy dénk la ca jiitu mooy nee na nan gën a gurgurluwaat te taxawaat ci jaamu yàlla sunu borom te fonkaat ko bu baax a baax taxa ne kooku kat li tax mu andinu fi mooy jaamu rek kon nag nan koy bay xel bu baax a baax ci sun lépp fas yéene koo jaamu jëf yi ndigalam yi wattandi ko tereem yi te jaarale ko nag ci sunnas muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama loolu nee na lépp ngi ci biir kon nee na mi ngi koy feddali bu baax a baax beneen ba ca des nee na day saa su nekk ak jamono jone lii muy bëgg a wax musu fee jóg mus ta dañ lu baax mus ta dañ di lu baax waaye léegi la raw te loolu mooy lan mooy toroxlu ci kanam sa borom yëkkati say loxo ñaan ko mooy ñaan yàlla sëriñ bi nee na nan farlu bu baax ci di ñaan yàlla suñu borom ndax ñaan suñu borom daf ko digle digal jaam yépp ne leen ñaan leen ma daal ca teg ne su ngeen ma ñaanee danaa leen may ud'uuni astajib lakum kon nag sëñ bi nee na nan kat ñaan yàlla son borom ndax koo xam ne am na lépp mën na lépp sañ na lépp du jeexal dara tax ne la ñaan la ñaan ma ma may la loolu tawfiix mënu koo weesu kon nee na nan fonkaat ñaan bu baax a baax rawatina ci jamono ji rawatina nag ci barab bi waaye na ci guddi gi nu dëgmal di bisu suba bi lépp feex suñu borom la joo xam ne lépp lës fi ñaan rek suñu borom mën naa nangu lool kon noonu mi ngi koy fàttali bu baax a baax beneen ba ca des nee na mi ngi nuy fàttali dimbalante jëm nu daan wax saa sooy ci sun biir nee na bu nu delluwaatee ca mbooloo kenn ku nekk mi ngi lay digal ndigal loo xam ne boo toogee fi barab melal ne mi ngi fa sawet di wax yow digal na la. dimbalante ak sa mbokkum taalibe képp ku ngeen gis mu mat a dimbali nee na ci mbooloo mi taxaw am na ñoo xam ne sax na dañoo war a gëstu seeni biir ngir jàppale leen dimbali leen ndax loola dafa bokk ci lim santaane ci liggéey bi kon nee na mi ngi koy soññaat bu baax a baax dimbalante ci sunu biir bu baax te sellal ko ta rafetal ko te xam ne luñ ci song rek sunu borom dana lu dimbali ca loola leneen la ca des mooy nee na na xel yépp dal sëriñ bi nee na na xel yépp dal te xam ne la sëriñ Touba jaayante woon ak suñu borom bam mu may ko ci tukki ba ba mu ñibbisi loolee daf caa bokk sëñ bi daa ñaanoon suñu borom ne ko tukki bii may tukki ak liggéey bii may liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam li nga may defal na ca bokk mbégte moo xam ne mbégte mbégte moo xam ne du taqali ko ak nun mukk adduna ak alaxira teg ca ne ko nang ma def nag man ahmadu muy sëñ Touba. li li fii may waxee yow ba faw ma doon mbégtam jullit ñëpp di mbégtam adduna sépp waaye nag na na nag nu saxalal loola te fu fi jullit nekk na taw féexi mbégtam liggéey bi ma ne liggéey na ko fekk fa mu nekk loolu sëriñ bi nee na kon ndax xel bu bu waxee ne na xel yi dal na xel yi dal ndax xel yi dal nan xam ne bëgg rek bëgg rek bëgg rek bëgg rek bég rek wax leen loolu bëgg rek bëgg rek bëgg rek sëñ Tuubaa daa wax ne hablii bi bi fadlika kaw nii sarmadan farahan lil muslimina wa xallit fii ka bushraana lii sëñ ba sëñ tubaa ka wax wa xallit fii ka bushraana mooy képp ku aju ci man ak ku mën a doon ak fu mën a ne nang ma nang ma koy suuxatal mbégte moo xam ne du dakk ba mukk te it sarmadan sarmadan la wax ba faw kon nag li sëriñ bi wax nan xam ne nun ñi yàlla booleeg moom dara dul gar dul bég mbégte mi mu wax rek kon nag nee na na suñ xel dal bu baax te xam ne képp koo xam ne ànd nga ak moom ci liggéey bii mu santaane te dafa wax ne li tax mu wax ne ci moomu war na wa war nañ ci sant sun borom bu baax mooy nit walla jëm bu amee bëgg-bëgg gaaral la ko nga ànd ci ak moom taxaw ci na mu ko bëggee deseelatoo ko dara te nee na liggéey bii di Ahibahil Khadim muy bëgg-bëggam am ñaareel te gis sa taxawaay bi ngeen ci taxaw ci pas-pas yi ak pasif yi ginnaaw nag pas-pas boobu am na ba ngeen ba ngeen maase taxaw ci liggéey bii taxawaay boo xam ne kawe na njort nee na bu kenn ci sikk sakkane moom ci jëmi boppam ji dana taxaw ci sunu wa taxawaay boo xam ne tawur ci xelum kenn sax ba mu di ko xalaat nan xam loolu bu baax a baax nee na sant na bu baax a baax ahibaalu xadim ba ko santaanee ba léegi kenn ku ci nekk fa nga ne mooy si yitte mooy si bëgg-bëgg waaye da ngeen xam ne day seen yitte jooji ak seen bëgg-bëgg boobu mi ngi leen di seere ne billaahi muy bëgg-bëggu sëñ Tuubaa bëgg-bëggu sëñ Tuubaa dong la ñuy sant sëriñ bi nee na bu ngeen delloo xam ne ay baalu xadim jii de xawma lan waaye bëgg-bëggu sëñ Tuubaa la moom la sant moom la ñu ba tax mu tudde ko ay baalu xadim soppee sëñ Tuubaa te yaakaar naa bu ëllëgee ñay dar sëñ Tuubaa xawma nu ñu toll de waaye mën naa ñoo yëkkati loxo mën a wat ne ñu sës moom mooy ña ko gën a sopp te sëñ bi naan ñun ñoo soppi sëriñ Tuubaa te loolu waxu ko bàyyi waaye dajal jubóog boromam doon nu ko tudde ba noppi def nu ko nu dond kon na mi ngi sant baax a baax ci te xam ne foofu waay mën a nekk loo ci def na nga xam ne yëg na ko gis na ko jàpp na ko téye na ko kon nee na nag mi ngi sant bu baax xolam sedd na bu wéree wéree wéree sëriñ Modou sëriñ Baara sëriñ bi nee na xolam sedd na bu baax a baax nee na nag xaas dafa am ak am sant na ñëpp gërëm na ñëpp waaye soxna yi sëriñ bi nee na nga xam ne sant na leen yéen de soxna yi déglu leen bu baax sëriñ bi nee na sant na leen yéen itam ndax li tax mu sant leen néewaa na jawriñ ju ñëw siyaare ko ba noppi te gaaralu ko pas-pas bu soxna yi am ci liggéey bi kon sëriñ bi nee na na ngeen xam ne fàttewu leen sëriñ bi nee na na ngeen xam ne fàttewu leen gis na pas-pas yi gis na pësé bi mi ngi ñaan ci dara ji sëñ Tuubaa ak Seex Mustafaa barkeb sëriñ Mohamed góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ci nekk li nga fas ci li nga koy liggéeyal saa borom defal ci lu kawe sa njot ci barkeb sëñ Tuubaa nee na xolam sedd na guyi la ca des nag nee na suba la ca guddi bi toog nii di waxtaan ci bis bii ci waxtu wii nuy wax waxtu wi nuy waxe ci la sëñ Tuubaa takkale sëñ Mudu Musaa garaatu Xaadimu Rasuul mu fekk fu ñuy wax ñaaxeen altine la woon altine altine joojee di fukki fan ak juróom-ñett ci xaama wam sa sin ci waxtu wii sëñ Mudu Musaa ma nga ñaaxeen ñu tappal ko garaat ba muy war a xëy suba dem njaareem ngir indi sëñ Tuubaa fii muy li ñuy war a waajal kon sëñ bi nee na jataay bii jataay bu bari baatin waaye nag jataay suba bi nag nan ko waajal na ñëpp ñëw fanaan si fii ci baas na teel a ñëw fanaan fi jana ko tedd ki ndax waxtu woowee ko sëñ Modou Moussa indee ba mu dugg ci jumaa ji wax nañ ne alhamdulilahi rabil alamina dëgg dëgg alhamdulilahi rabil alamina nee na guddi gookal ko sëñ Touba Moussa wax dëgg dëgg alhamdulilahi rabil alamina jana ca xol dëgg dëgg yi sëñ Touba gën a fonk mooy bi mu duggee ci jumaa ji la ko door wax suñu borom ndax lool rek la bëggoon ax dimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal munaa wal min sama laxsaay gu doon te gu mukk lu dul dañ maa andi fii rek damaa ñëw fii rek ba ba janoog suñu borom moo tax sëñ Musaa Ka ne ko fa bal sa bong te wéy ji naan lekkal te notti nag te naan jaa jëf defar nga xarnu bi loolu mooy guddi suba gii kon sëñ bi ne nañ ko waajal ci pas-pas ci pësséef bu ñëwee fii suba ci guddi gi ku mën a jàng ci xasida yi na ci nekk ku mën a yor sa kurus na ci nekk lu way man ci turu yàlla na nga ci nekk te xam ne sëriñ baa ngi nuu jege jànd ak noonu bokk ak noonu liggéey bi kon nag nee na sedd na guy maa ngi ñaan loolu saa yi wax mbooloo mi kenn ku nekk ñaanal sa borom ne li ma gën a bëgg nga defal ma ko te jiital ko ci li nga may defal mooy na fi Cheikh Moustapha Mohamed yàgg kenn ku ne na ko ñaan Cheikh Moustapha Mohamed yàlla na fi yàgg Cheikh Moustapha Mohamed yàlla na wér Cheikh Moustapha Mohamed fajog aajo gi sun borom yor di ko jox ñu ko soob yàlla na ko te ci loxoom mu faj sun aajo faj aajo jullit ñëpp te dara ji sëñ Touba ki démb liggéey bi mu santaane muy njàng moom mi mu waxoon wax nu ne noonu ko yaatal déggal ko sëñ baara lam ca wax dégg daa wax ne bu ñu jàngee kenn ku nekk na fas fu julli nekk ci adduna mu fekk la foofee nga am jàmm tegaat ca ne na yàlla sotti ci na yàlla sotti ci adduna sipp jàmm kon nag jàmm la yéene ñëpp kon nag nun nan santaat yàlla bu baax a baax jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na xolam sedd na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li arab dafaa ngi xewoon fi mbàkke fayoo ko tey la bay gaa cam si la wusiwul mooy saay saay naway tasar xam summa xarbal mustawa samsul waraaya boo ko weerub leeraay kut boo ngee gaay la wusul dañ raa xamul géej gaa ngi am xaayaana ngi muy wey ba xaay baaru laqiqatu wa sariyatu wa nadaa maw jun ya booro ilal waraaya jenn waay yaay mbambulaan baxru nadaa sanguleen te duy yaay ndox mu teey ku la tabbi tooy ku la mandi taay yaa murtajaa nil murtajaa nil murtajaa yawmal qiyaamati ñi la yaakaaroon nañ ñu saay ku la am di réer koo amul réer ku la ñàkk jooy ku la am di réer yenn mbaa laa ko ca